jàngat bi nga xam ne njëkk nañ ko def li jëm ci wàllu manifestation yi nga xam ne amee demb démb ci Ziguinchor mooy ne bi yoon mbir yi tànguloon niñ ko nemmeekoo ci mars 2021 ak juin bi weesu dogal bi nga xam ne jël nañ ko place ki nga xam ne bu Ousmane Sonko su mandat dépôt yëngal na bu baax a ba Ziguinchor waaye dafa mel ni bi yoon takk der yi dañ ko waajaloon bu baax a baax ndaxte mbir mi rëccul seen loxo ndax patrouille yi nga xam nag armée ak gendarmerie amal nañ ko ci biir dëkk bi daanaka bëccëg bi yëpp dënn yi jóg na ci militants yi nga xam ne ñu ngay faree ci Pastef ginnaaw bi dogal bi jógee wañu ne yóbbu nañ Ousmane Sonko kaso ndaxte taal nañu ay pneu waaye amal ay barricade fépp ci ay quartier Ziguinchor mel ni Lindiane ak Inéma 2 ba sax fa nga xam ne moo di yoon bi nga xam ne moo jóge Ziguinchor dem Cap Skirring mbir mi nag gën naa takarnaase ginnaaw bu xibaar bi siiwee waaye jàppante métti yi nga xam ne topp na ci daanaka def na ay waxtu bala ñoo ne mekku dal ci ay diiru 18 heures waaye nag ci ngoon si ci ay diiru timis lañ ñu yëgal ne am na benn xale bi nga xam ne am na lu weesu ñaari fukki at moo amee ay gaañu gaañu ba ñu rawale ko fa nga xam nag moo di service urgence ci régional bu Ziguinchor moom nag bi mu fa yegg see daanaka jëm nañ koo faj waaye mujjee na gaañu waxtu li ko weesu. am na beneen waay wi nga xam ne nag moom mu ngi amee fanweeri at li weesu moom nag daanaka néewam moo egg fa nga xam ne moo di hôpital régional bu Ziguinchor waaye nag ba jamono ji ñuy àddoog yéen ni xamaguñu ba léegi lan moo faat ñaari nit ñooñee nga xam ne seen bakkan mu ngi yorotee ci manifestation yi nga xam ne am na diggante manifestant yi ak takk der yi fii ci Ziguinchor xëy na enquête bi nga xam ne procureur na ko ci ibbi dana andi ay leeral ci mbir mi.